waaw Alioune Ba ngi wax ak ñoom quatrième soirée wala nga ne quatrième la soirée diggante Bébé Saloum ak Mbaye Feugeula Bébé Saloum ak Mbaye Feugeula Bébé Saloum moo ngeen boo ngeen bulu vert li am sifflé la Bébé Saloum ak Mbaye Feugeula moo ngeen boo ngeen bulu daar bu verte bi gàlloo morso bu xonq bi waaye ñoom ñoo ñëpp a gàlloo morso bu xonq waaye kii dafa takk takk ak ndaam ci bopp bi bu weex saan Modou Feugeuleu Feugeuleu Mbaye Feugeuleu ak Bébé Saloum Mbaye Feugeuleu ak Bébé Saloum gi xeex Mbaye Feugeuleu dóor na Bébé Saloum replié Mbaye Feugeuleu Bébé Saloum saan Bébé Saloum dóor na Mbaye Feugeuleu replié Mbaye Feugeuleu Bébé Saloum Saan ñaari xale yaa ngi ñu ngi xeex ñu ngi xeex Badou Wa daan buub na ko eh Badji eh, daa mel ni arbitre arbitre arbitre daa mel ni Saan dëpp na Saan Bébé Saloum mi ngi ut ngemb waaye Mbaye Feugeuleu mi ngi Mbaye Feugeuleu a ngi koy dajale Mbaye Feugeuleu a ngi Bébé Saloum am na ngemb Mbaye Feugeule doxal ko taxawal mu jéggi ko da koy tuur wala Mbaye Mbaye ci loxo mu dem Mbaye Feugeule ak Bébé waaye Mbaye Feugeule dafa mel ni mi ngi koy dajale mi mbot mi ba mbot mi ngi koy suuf saan Mbaye Feugeule tegal na ko seen sukkur bi ko daan na daan na Mbaye Feugeule daan na ko Mbaye Feugeule daan na Bébé Saloum Mbaye Feugeule daan na Bébé Saloum oh daa rew takk rek sukkur bi ko gëstoo ak moom mu teg fees daan na ko jëli bu rëy daan na ko jëli bu rëy waaw bàyyi mu yëkkati ko bàyyi mu yëkkati ko baax na xale ay sportif liñ dañ ne saan